Uh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa samay mbokk ci yàlla samay mbokk ci Mawlana Cheikh Ibrahim mbokk Sénégal yëpp àddina bi yëpp maa ngi leen di nuyu gannaaw ba ma sant yàlla julli ci yonent bi sant Cheikh Ahmed Tijani mbooleem sant nag ma sante ko ki nga xam ni moo ma fekk ci lëndam dugal ma ci leer ki xotti sama xol def ci yàlla ki yàlla sédd muy séddale kooku di kan muy mawlaana cheikh al islaam alxaaji ibrahima ñas al kawlaxi gannaaw loolu nag maa ngi nuyonteeg sama mbokk sénégal yi nga xam ni depuis élection yi ba léegi gëj nañ maa gis ci li nga xam ne mooy ci réseaux sociaux yi ndax boobu li tax ñu jël ngeen géej maa gis lenn rek la mooy nit su nekkee ci xeex ba gañe soo gañee da ngay dem noppalu ji tëdd di nelaw ndax coono gi danga ngaa war a noppalu yàlla def nag ki nga xam ne moom lañ gëmoon te moom lañ gëm ba tey ànd ak nag moom ci projet bi muy premier ministre nu ma koy waxee Cheikh Ousmane Sonko mu sell bi moom moo xool ku ko neex mu joxoñ ko ndax mooy borom projet bi joxoñ ca projet boobu nañu Bassirou jomaay fay moo ma doy nañ ko teg te lam joxoñ noonu moom la yàlla def tey mu nekk président maa ngi filiste président Bassirou Diomaye fay ci lim jël ci réew mi ak lu nekkee ci réew mi di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla musal ko ci pexeeb noonu yàlla defal ko jàmm ba nga xam ni fa bëgg yóbbu Sénégal dina fa yegg jàngat naa leen ci biir senegal mooy bañ commencé jël réew mi na tëg dama gis ni lañ waroon a def ci fukki at ak ci juróomi at yàlla defal nañu def nañ ko même pas ci trois mois wàññi nañ dund gi ña ngay xool yoon yi yi nga xam ne tey Sénégal mën a jëm ca kanam ña nga ca te gouvernement bi ni ñuy doxalee vitesse bii ñuy doxalee man de li ma ci gis mooy kontaan na ñi nga xam ne nag ñooy yàqkat yi mënuñoo ñàkk yàq ndax nit su la yëkkatee ba ca kaw dóor la ci suuf toujours xol bu métti day des ci yow ndax xol bu métti boobu nag far force nga mën a yàq di yàq waaye ñi gëm te gëmoon projet bi nañ jàpp projet bi te nekk ci gannaaw ñii nga xam ne tey bëgg nañ réew mi ndax ni ñuy doxalee réew mi musta am ba Sénégal nekkee ba léegi ñu ngi ciy sant yàlla fàttaliku naa ci Abdou Diouf bu baax a baax ba muy jël réew mi boobu maa ngi xaw a nekk waxambaane waaye fekke naa ci jamonoom ba nu mu fiy jóge fekke naa élection yi nga xam ne mooy 88 yi bokk naa ci maa koy fàttaliku Serigne Mamoun Niass nekkoon suñ leader ci Kaolack ba mom ak Ablaye Diak chaque jour dañ doon xëccio Serigne Mamoun diko fa gañe waye toujours Abdou Diouf ñaan ko nako bayil Ablaye Diak mu doxal fofu lañu fekk fekk nañu ci gudd gi nga xamni Ablaye wad mu ngi kër Serigne Mamoun Niass ci Kaolack nangam mu dess ñett fan mu wara delu Dakar mu tàllal loxoom sëñ Mamoun na ko garanti naa la yegg nga mooy jël nga réew mi fii la ñu fekk ñu ànd ak sëriñ Mamoun mu ànd ak Ablaye Wade ba nu mu fay jógee ànd ak sa Seck ndax su ma doon nettali histoire yi ca Fatick bañ fay dugg 2007 boobu ci kër Macky sàll mu ne ñu doo leen dugg Fatick jàpp ci ñun ñiy kaso 32 personnes keroog boobu Maître Sèye mi nga xam ne moo nekkoon avocat gouvernement bi moo nekkoon suñu avocat. tëdd nañ fa un mois yoo xam ni ñun suñ association Shababul Fayda sécurité boobu ñoom lañ tëjoon ci kaso gi ñi ñu doon àtte procureur yi ñu ngi may dégg am na ñu ci nekkoon waa Kaolack ñu doon àtte ñu àtte ñu dix heures ci suba ba presque quatre heures ci guddi ñu bàyyi ñu ñu dem mais gars yi tëdd nañ li nga xam ni mooy trente jours yi tegal kon loolu yëpp rek dañuy nettali rek ne fekke naa ci réew mi lu bëri ànd ak suñu frère xam ci politique lu bëri nekk nañ ci biir AFP jóge nañ ci AFP nekk nañ ci biir PDS ñëw nañ ci APR ba ñëw ci li nga xam ne tey mooy solution Sénégal muy Pastef nga xam ne mooy projet bi lu may wax rek mooy maa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla bu baax ndax man sama sant yàlla du nguur sama sant yàlla du dara man sama sant yàlla Mawlana Cheikh Ibrahim Niass la dama liggéeyal sama baay sama baay gërëm ma ci liggéey bi ma ko liggéeyal moo tax fu ma dem rek buur laa fay nekk te doomu buur laa kon sant naa yàlla maa ngi ñaanal encore kii nga xam ne mooy président euh, Bassirou Diomaye fay ak kii nga xam ne mooy premier ministre Sonko yàlla sàmm leen te dëgëral leen su ko defee nag incha allah li ci des moom danañ ànd ak ñoom jàppale leen doxal ba nga xam ne projet bi ñun ñu ko xeex ba nga xam ne ñu am lii ñun ñëpp Sénégal ñëpp ak képp ko ci jàpp xeex ci ba mu àgg fi jàppaatal ne projet bi jeexul na ngeen jàppaat ndax noonu yi dafa gën a bari ñu jàppaat ba nga xam ne projet bi ñëpp danañ ci gis seen bopp ba nga xam ne noonu yooyu dañ ciy gis seen bopp ba ñëwaat jàpp ci projet bi loolu moo ci am solo li tax nag ma génn dafa am solo doomu Kaolack la Kaolack nangaan laa dëkk ndax lépp lu may tiitaroo ci Sénégal duma ko tiitaroo fenn fudul dul ci Kaolack Sénégal yépp suñ boole woon di xiif te Kaolack moom regg dama naan alhamdulillahi rabbil alamin li ñuy wax ne xubbul watan min al iman bëgg sa réew bokk na ci jaamu yàlla waaye bëgg sa dëkk tamit bokk na ci jaamu yàlla ndax man suma ma sañoon Kaolack mooy dàq ci Sénégal Kaolack mooy dàq ci àddina bi ndax saalum saalum pire la te ñun Saalum la ñuy tiitaru waaye fan yi dañoo gis loo xam ne ci Saalum dafa jar nag ñun ñuy ootee patriote ñu xoolaat suñ bopp ci suñu doxalin ñun patriote yi soo déggee mën a patriote yi mooy ñun influenceur patriote yi nga xam ne tey dem nañ ba am tur ci li nga xam ne tey ci biir Pastef waaye ngalla waaye ngalla buñ yàq li nga xam ni moom la projet bi liggéey ba fii parce que nag yëf yi ñu ngi koy bëgg a yàq ci benn côté boo xam ne baaxul keroog dégg naa dem ba Touré waxtaan na ci nee na nañ yaatal suñ xol yi yaatal suñ xol yi mooy lan nañ ko yaatal ba xam ne ñun dañ fee nekkoon di opposé liñ doon opposé jël dem nañ ba am ko mais nañ bàyyi ñeneen ñuy opposé tamit ñu wax seen xalaat ñu wàññi li nga xam ne di dugg ci biir privé jàmbur yi di saaga nit ñi yàqaluñ kenn suñu bopp la yàqal ndax dafay mel ni luñ ñuy jëwee dafay nekk dëgg te loolu du dëgg mooy lan tey xoolal gaa yi nga xam ni tey ñun Kaolack lañ dëkk xam nañ du nekk Kaolack naka la ñuy toogee Kaolack depuis ci jamonoy sengoor ba léegi coono guñ am Kaolack Kaolack nekk Carrefour Kaolack ñu koy jooytu pour am maire yu baax mënuñoo am meer yu baax yàlla dimbale ñu ñu gis benn ndongo daara boo xam ni ndongo daara boobu ñu koy wax kan ñu koy wax euh, sëriñ bu ñu gis ne kii de gis nañ ne ab liggéeykat la ndax taxawal na lu bari ci ay société kon mu ngi ñëw Kaolack te gis na ne baayam Kaolack la nekkoon a ah, moom mu gis ne moom tamit kon dafay ñëw ne wane ne moom doomu Saalum la dafay ñëw Saalum pour dimbale ñu ñu am yaakaar ci moom jàppale ko bam mu gañee waye waaye dañ cee am bettel kon suñ ci amee mbetteel tay su demoon ba nga xam ne ki kii nga xam ne mooy sëriñ bu du ma ne déedéet du dem uti feneen ndimbal ndax doomu Saalum Saalum yang ngi fi su demee ba bawal di uti waa bawal bawal yoo xam ne ñooy ñëw taxawee ko biir Kaolack te doomu Kaolack yi nekk fii kon war naa xoolaat boppam xam ne am na loo xam ne mu ngi ñuul ci biir soom te lii ñuur ci biir soow mi moom xam na ko ñun xam nañ ko moo tax ñi fa ñëwoon tey di ko filmeel naan ko yaa def lii yaa def lii yaa def lii xam nañ ni ñoom seen diggante ak yàlla la ñuy wax dara nekku ci dara du ci dëkk kon nañ arrêté loolu tañ xool li ñu war a bàyyee ñun ñu dëkk Kaolack xam suñu méttitu góom ñun ñu defal ko seen bawal googu jël leen ngeen xool la fa nekk ngeen jëm def ko ku nekk na yem ci région am xool lu baaxul ci région am nga jéem cee góorgóorlu am ci loolu